tamit bébé Clear da nga am problème de peau am jafe-jafe ak ay rew ay points noirs utiliser bébé Clear bébé Clear day réparer ce peau taxi ko teg si ko ak bébé client da ngay commencer gis résultat légui légui légui ndax day rajeunir ce peau sublimer ce teint teg si foo ni ñu ràññee la ak bébé client yanj ba faw ngay am fofu rodis 77 441 08 18 77 441 08 18 White Secret White Secret staru diw yi dikk na crème bi lay jox teint bu macha allah teint bu macha allah bu ñëpp di coowee nag ba coow li jug nga ne law la cat White Secret maanaam teint bu impeccable effacé imperfection yépp lu mu fekk ci sa kanam yóbbu ko lu mu fekk ci sa yaram yóbbu ko fexe muy nes nesi fu mu toll White Secret fee mu jigéen waaw waaw ñu taaru ñi moom rek la ñuy xëccoo teint wóor mu defal la ko ak White Secret waaye yow White Secret ak White Secret 77 441 08 18 77 441 08 18 ou le 77 449 61 80. dalen ak jàmm ci Jal Shock Makeup da nga maquillage bu qualité ñëwal kay. Kay fi ci marché HLM centre commercial Elisabeth Diouf dend ak ancienne police fond de teint buy coulé le poudre bu dul jeex ak shop Makeup ay produit 100 des États-Unis ngay am fofu. Holal, poudre de marque Iman Mélanine LA Girl L'Oréal Lacombe, Fit Me NK Dream Matte Mousse poudre yu baax yi bu ci nekk zaal am fond de teint jëlal superstar bi ak tàngaay faare jeex na fi ndax poudre minérale dina la téyel sa maquillage 24 heures wow, waaw 24 heures laa wax ana ñu bëgg selfie yu leer teint buy nes nesi dikk leen sunu làmp ring light nga xamante ne selfie ak shooting rek moo ko tax a jóg dimension bu nekk am na fi tànn sa bu la neex Zal makeup am na ay lipp lèvre yu rose Victoria Secret fard bu la réer xet bu neex tamit mën nga ko fi am ndax am nañu ay parfum de classe déodorant maa ngi fàtte sax sunu trousseau de maquillage Zal Makeup Coiffure et tamit amnañ ci ndax professionnel lisseur curling lisseur sling pot huile cheveux gel baby hair sil cheveux 3D Lobug bëgg Zal Makeup marché HLM centre commercial Elisabeth Diouf à côté de l'ancienne police téléphone 77 986 20 12 78 634 44 02 ak Zal Makeup yi ngi ngay am foofu. police. J'ai pas entré. yow la ngay def nii. li may def xamuloo ko Kéba lan may doy ma ne kuy daw dëmm ñaari fan ngi nii mënuma ko teg bët mu nekk ci biir néegam may fëgg duma faale mu teg fan. Kéba nekk fi dafa génn depuis suba. koy la xam Kéba waaw dafa dem utali nee na ay renseignement dafa am benn concours sage-femme bu muy def. waaw waaw Kéba wax na dëgg kay. cagaan bi moom bu mu bëgg mu ànd seeg moom. man nag lu ma bëgg lu ànd seeg dara dara dara pour la Dior Fane ngi dig ma cinquante millions su ma ko joxoon du ma dem ko mu taxaw génn samay bu boobaa kan laay sagal imagine ma am soixante ci mbedd bi di def ñu ay di bu ndaw bil bu boobaa

Je ñëw gis ngeen affiché tey le dernier délai bi euh, mu bëggoon am dérogation. mais monsieur fi administration la ñoo une dérogation de toute façon man maa ngi ba 16h mais au-delà de 16h soo ñëwee di nga fekk ñu ko clôturer. 16h madame. bien sûr il est déjà 12h ça te reste 4 h de temps donc euh, gaawal rek nga dem ñëwaat. ok d'accord merci. bonjour. inspecteur.

parce que bo ñibé sa kër di waxtaan ak sa yaay du ni nga waxé ak man mom ngay waxé ak mom bo gesso di wax ak sa doom du même façon bi ngay ak mom so duggee ci sa bir nek di waxtaan ak sa jabar du non ngay waxé ak mom kon aduna ñeppay ay nga bal ma nak en tout cas le journal la mon numéro Et information ko mes réseaux nang ma contacter jox mes dama am un contentieux personnel et ça fait des années que je te gis nga lu mu yàgg-yàgg ku mu mën a doon va. noo def naka marché. ça va tàng rek. di kay. ndugg pas tellement de xam nga rek marché bi mooy loolu. ah super. foo jëm. maa ngi dem répétition te ñëw. d'accord répétition heure bi. dama am benn film bu bees bu ñuy lancé rek mais du ma yàgg damay dem rek ñëwaat léegi dégg nga. ok. sa téléphone da nga fi fàtte wala. c'est pas grave dafa déchargé wu chargé ma ko mais ku ma woo mën nga ko jël après su ma ñëw rappelé ko. d'accord. film bu sensible boo xam ne mi ngi wax ci mara yi nga xam ne dañuy nax askan bi di lekk seen xaalis ah. film boobu ok pardon grand mas d'accord yow yaay directeur troupe bi mais bul fàtte fan yee paas rek lañ fi si woon benn film caga dëkk bi yëpp dañuy mamb coow loolu jeexagul ba pare ngeen bëgg a laal ak sëriñ si gin si xoolal bu ñu moytuwul ah jigéen nga ñun ñëpp lañuy liggéey ñu tee te loolu xoolal man jaralu ma ko. ñu jox la rôle nga joué wala nga bañ ko joué d' accord bon man nag dafa am ñoo xamante ne ni euh, dañuy def film pour révéler nit ñi di leen leneen mais man dama préféré def film yee sama askan lu ma ci góobee nag mun naa ko gar. Euh,

yàlla na nga def am jaay ma enveloppe. Diallo jaay ma enveloppe. lan la man jàmm la bu yaa ngi dégg enveloppe amul ah, eh. te maa ngi ni di seen enveloppe. léegi nag ma wax la nga xamul benn yoon yaa ngi dégg man dama bugg alal bu léew man duma jël xaalisu caga juma jële xaalis makkaru yéen baaxul baaxul ah bëgguma seen xaalis yéen baaxul te yow ay réseau ngeen man man yow Diallo li ngay wax wóor na la li ngay wax est-ce que wóor na la yow man ak sama yaay daf leen ne dañ leen bàyyi ak yàlla yàlla nañu yàlla àtteeg yéen parce que li ngay wax dara wooru la ci sama yaay dina leen lakk yéen ñëpp parce que li ngeen di wax tegoo leen ko fenn te tegoo leen ci seen bët pasque mi waɗa on ko wo makko ɗum cagaji gandi toon ene say say lekkalal mo bakul yo saya bakul ku wax cinéma wax création te création amul interdiction kon ku mu neex nga def li nga gëm bon dafa am ñoo xam ne dañuy fekk nit muy nelaw ñu ray ko pour mu gëna nelaw bon am ño xamné ne dañuy fekk nit mu tëdd ñu wiss ko ndox pour mu yew ñen ñi dañuy fekk seytana ci yow ñu yé ko pour mu lor la ndaw dafa am lo xamanteni ni mission bu mu am ak wa rew man nak sama mission moo yé sama askan

ma sàcc wax leen koko Clear si lu yàlla sàkk jigéen ndox ak gàncax ñoo ci dàq xale bu yànj bi daa bëgg gàncax gàncax bëgg ko moo tax mu xamal ko li gën ci dërëm koko dara gënu ko ci po jëfandikool Coco Clear ak Coco Clear da ngay gën a tàkk ni jant waaw fu jant bi leeree nga leeree

Bienvenue à Central Équipement. Vous êtes promoteur. Vous voulez investir dans le domaine de la restauration ou encore dans l'hôtellerie Aux ambassades qui désirent rénover la cuisine de leur résidence, les ministères, les ONG, une seule et bonne adresse Central Équipement, 6 à Nord, en face de la cité Lobatfal. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient tout concurrence. Du matériel de qualité exposé dans un cadre enchanteur. Quelle classe Ensacheuse, pasteurisateur, remplisseur liquide, moulin à grains mille, maïs, café, vous pouvez tout mettre en sachet. Des moules silicone, des poches, des pinces de service, moules à quai, couche-chef, sauteuses, écumoires. Central Équipement, c'est aussi du matériel électroménager de dernière génération avec micro-ondes, four encastrable. Pour les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année, Central Équipement est en promotion. Une grande remise allant jusqu'à 30% est proposée. Profitez de nos packs pâtisserie, pizzeria, traiteur, fast-food et des packs surprises. Ne ratez surtout pas cette occasion. Central Équipement, votre satisfaction, notre plaisir. C'est un supermarché saint Teranga Bumbour. Nek fi du croisement salé sur une station à payer. alimentaire vaisselle électroménager droguerie bazar lepp lo soxla ci njëg bu xéewale yen ñi nekk Mbour somon Ngaparou sinja Medinatu salam lépp lu ngeen soxla mën ngeen ñëw fii jënd ko fi ak seen teranga seen bànneex sunu mbégte ñëw naa bu yàgg ba ma ñëwee boobu yaa ngi ci waañ bi ci laa sumeeku dem ci boutique bi ana sama yaay sa yaay mu ngi saa lan la wa sama extrait de naissance laa soxla woon parce que damaa bëgg déposer benn concours. d' accord est ce que doo dem salle boobu ji ko parce que téléphone am fii la ko bàyyi de. Penda yow yaa gën a xam ma sama yaay neexoowuñu dama ko mere damaa xuloog moom s'il te plaît ma ko. li wax bu la ñoree di nga dem woowal ko sa bopp. Penda nga bëggee ma woo sama yaay dem ci biti. koñ bi nga xamante ne jaratuma fi dara fu ma génn ñu naa ma doomu cega bi doomu may réseau baa ngi nii su may génn sax damay yóru di xool ndax koñ bi kenn nekku fi ci bitig bi laa jóge di jënd borom bitig bi jaayu ma sax doom moo woo sama yaay waa Penda madame dafa benn personnage bu bëgg ñu liggéey ko man ak yow benn femme bu bëggoon àdduna dem ba ci biir changé dem seetu benn sëriñu daara pour mu jàngal ko alxuraan mu violé ko personnage boobu laa bëgg ñu liggéey ko. Hmm. Mass yaa ngi bëgg laal laalaaki yaa ngi bëgg a dugg ci point boo xam ni boo ci duggee dootoo ko defat est-ce que xam nga ne sëriñu daara fii Sénégal kenn du leen tudd boo nee colfet ci ñoom dañ lay daal di wutal tour soit ñu ne franc-maçon nga wala dafa am lobby bu nekk sa ginnaaw wala sax ñu ne dangay ngay xeex lislaam mais jullit àqat ne man mais naka laay xeexee lislaam parce que xamuñu la gis nga tey euh, bu fekkonte ni nii dañ ne benn prof moom moo jël benn xale violé ko ay mbokki jàngalekatam dañuy jàpp ne moom mii kat xëy na dafa nekk kenn ku bon ku rax ci ñoom du am problème waaye tey boo ne woon sëriñu daara ba moo violé xale noo coow dina la toog di nga am riir bu toll ne màggal Tuubaa parce que ñoom tout temps rek te sénégalais dañuy jàpp ne loolu dëgg la xaw ma yaa ngi comprendre fi may waxee ou pas. xoolal si mission la ñu nekk yow waxi ragal rek nga ma wax quoi. ragaluma dama lay dànkaaf. d'accord xoolal bàyyi loolu quoi ma expliquer la caractère personnage bi d'accord ah. Eh, ana ana Nene pare na. Nene lan lay pare. extrait bu mu waroon jël ci yaayam. non mais yaayam nekku fi. lan. dafa dem répétition. mais mais attends 14 heures moo jot bu 16 heures te déposé wul day forclos moom fan la nekk. mu ngi ci biir daa mel day nelaw de. nelaw ki la moo ko dal ki ma koy. comment Nene.

waaw doo toog nga xaar. aw ma benn toogaay aw ma tax delloo sa tool yi nga def xool li ñu dem maa ngi wax ak yow bu nga ne gis nga

waaw gis nga sëy bu ci ay parent àndul du mës a am waxu mag di àndu ndax man doxuma si dara ñàkk fayda ku ma xamul it dégg na ma yow ñëpp xam nañ mes raison ñëpp te man sama deret dafa xeeb sa deret yow sama askan du ànd ak sa askan kon sa doom na téye boppam si sama doom ndax man sa xeet ci boppam laa dul jege. ay da pare nga wàcc sama oto wàcc ma oto Aida wàccal sama oto gis nga ayda yow doo comédien comédien bu mag baa ngi nii yow da nga tricher rek ne woon naa ne ay de lim lay bëgg bëgg lu yëpp bëggu la waaye gëma won nak ndax mom moy xalé mom nga mëna a waye man magum jëm mi mëno ma lëre yo xam nga lu la ñor ci aduna li ndok lenn ma leel yar ni gis nga lo xamne moko gëna kawé kawe nga na xaar ma jël lako waye ndok na mu ci yebu ci ku la ci ba max nga jël mais dama bëgg nga may ma nga wacc sama auto dina wacc sa auto de waaye leen rek laa bëgg nga xam ko sama doom du mos a takk sa doom may ma s'il te Né le 31 décembre 1999. né. My name. <laughs>